Trievo li ci yéene kay beeg Thierno Dia bisimila dañ koy door rek la si du quotidien moom mi xëy di ñu càmbaral mbir yi Bassirou Diomaye Faye ci jongante yi ñuy waajal ci campagne électorale yi ci gis-gisu maître Ahmed Thiam di consultant jëmale ci droit pénal ak Djibril Gning bu GRADEC ba léegi ci Sud Quotidien ndoorteelu tey ji huitième de finale Coupe d'Afrique des Nations tey ji ci gaaw gi Nigéria ak Cameroun ñooy doon affiche bu njëkk bi yéene bi di ñi nga xam ne ñooy waa sapeur pompier ngir seen liggéey gën a mën a ñoŋ laas bi xëy di waxtaane muy ruumandaat yi ñuy def ak salfaañe conseil constitutionnel bi rawatina ci enquête parlementaire bi ñu bëgg a ubbi yéen jafe-jafe lañ ci mën a càmbar ginnaaw nag bi ñu seppee may sa Karim Wade ci élection présidentielle 2024 yi ñu jëm yéene kaay bi di l'observateur def taxaw seetlu ci des alliances yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci kujje politique yi ngir lu jëm ci wàllu élection présidentielle 2024 yi ñu jël yoonu boppam dëgg-dëgg mooy Mimi Touré dem na fekki Pastef mu ngay jàppal tànk Bassirou Diomaye Faye ci élection présidentielle 2024 a kay bi nañu alliance yi koy jaxagul ñi ñu rékkale ñëpp kenn ku ci nekk mu ngay xool ban candidat lay àndal ngir jàppale ko mu mën a génne élection présidentielle 2024 yi yéen a kay bi dañu xamal ne ki nga xam ne mooy Amadou Ba la mu gëm ca dëgg-dëgg mooy élection yi da koy gagné dès premier tour yéen a kay bi di xamal ne moom élection présidentielle 2024 yi dana am wala du am ki nga xam ne mooy Amadou Ba moom la mu gëm dëgg-dëgg mooy élection présidentielle yi dara terewu ko am ndax déggul benn bugance wala benn coow boo xamante ni am na ci réew mi benn yëngu-yëngu boo xamante ni war naa tere élection présidentielle 2024 yi am yéen kay bi di direct news moom mu ngay làng ak waxtaan candidat wu APR bii di Amadou Ba la ko gën a wundu ca dëgg-dëgg di Benno Bokk Yaakaar tas gi mu tas commission d'enquête parlementaire bi nga xam ne ñu ngi koy taxawal ca assemblée reportu élection présidentielle yi moom Amadou Ba mu ngay xam le ne position di commission d'enquête parlementaire ba ñuy taxawal ci assemblée gëmul ne am na benn impact ci liggéeyu conseil constitutionnel ndax ñoom conseil bi la ñu war a def def nañ ko ba noppi assemblée nationale mënta gën a xarañte institution bu mu toll ni conseil constitutionnel kon nag requête boobu fa muy mujj ca dëgg-dëgg mooy nax saay ba léegi Amadou Ba moo yor kàddu gi wax na ba léegi ci taxawaayu Boun Abdallah Dior Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao la mu gëm ca dëgg-dëgg mooy ñii ñëpp ngi ci mouvement présidentiel bi yéen a kay bi di stade la ñu koy jaxale di coupe d'Afrique des nations Sénégal Côte d'Ivoire war a laale ki altine ci huitième de finale bi yéen bi dañu xam nañu samp ci ab laaj ndax gaynde yi ndax mën naa tere nelaw éléphant yi ñu yendoo jàmm